gumbay xele yi sax ñoom day ya ngay palamtu yaasin kooka mooy muhammadu rasulullah rasulullah bismillah 88 628 32 32 macha allah am na solo si waxtaan bi ni koy benn mag bi waxee si koy dafa mel ni dañ wax na serveur bi dafa am problème xam naa ñàkkul minute yu néew da ngeen nu mën a topp si 88 628 32 32 sunu technicien bi sëñ Abdoulahi mu ngi si fa di nuyu bu baax tey siyaara ñiy yëngatoo si rajo bi yëpp Doudou Coulibaly soxna Lo ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara fa tabarakallah papa xam naa dañ lay bàyyi nga laaye biire mm-hmm. jamono jeeg ñàkk yàkkamti gi nga xam ne ndaw ñi yàkkamti nan ko mm-hmm. ba macha allah ngay dégg yu bëree bëri eh, si li nuy wax am am léegi wala dee fa sori. waaw <laughs> yooyu lan nga si mën a laajee biree. loolu mooy tooba saxal. Mm-hmm. wala ma sulli. Mm-hmm. da ji dugub. Mm-hmm. wala nga ji loo mën a ji. war a xaar ba saxam jot. nga toppatoo ko ba ñoroom jot. nga ji ko léegi. ne bul teggi sa tànk na génn léegi. loolu bu amee. njuumte yu bari dana am mm-hmm, mm-hmm. ba tax na yàlla bindewut noonu jamonoom mm-hmm, yàlla lu war a génn loolu da koy génne mu def ko ndax moo boole xudratu ak iraadatu wallaay te mooy faalu li maa yuridu kon yàlla moo man loolu wallaay wallaay mu wax na nag walaa u yaxtasu bi rahmati man yashaau walaa usul fadlin azim yërmande ngëneel moo ko moom ku ko neex rek la koy jox kon bu loolu amee sañ Mbay Jaxate nee na ab lar bu la ko waxee moo di jaamu bi yàlla mooy nit Mm-hmm. bu yàllay fexeelub laram yiw wu rëy mm-hmm. du diisoo da koy def ñu xëy gis ko fa wallaahi wallaahi hmm? wallaahi lu waaye rëy rëyëb cër du yóbbaale kat mm-hmm. cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa ndax ku jël sa yëf it faaw day mujj ñëw danaa lii ma yor fab ko jël sa yëfa macha allah ah kon <laughs> ginnaaw kon mbir mi jarul dox ba rëq jarul gaawtu jarul lenn liggéey nag Mm-hmm. ak coono. Mm-hmm. diine ko digle. Mm-hmm. def ko ngir mu war la. waaye bul ne ku liggéey am. tey sàkku bul ne ku liggéey bari le. tey sàkku barke tamit dinaa koy wax compte barke. voilà lu am solo. dëgg na ndax bari le. barkeel le ko gën wallaay wallaay. tey yoonu barke boo ca jaaree. da nga àgg ci dëkkub barke. bu fekkee jaaroo ca nag. jaar ci wu ñal. tànk saa bu jàddee wu jam ko. lu wér ah? wér nit bi fii mu ne. nañu laayante biir. ni ko alxuraan waxee ñuy dimbalante. ci lu baax. te bañ a dimbalante ci xeexante. ak lu indi bakkaar. Mhm. ak a noonoo. Mhm. nit ñi lii la ñu xewal. ak ay ak a bëri. mu ngoog ak yàqlante. mu ngoog mhm. dañuy ñëw ne la sëñ Cissé. lii la la wax lii la la def. sëñ Cissé mii ku bon la ci yow. nga jàpp loolee. fekk tey sëñ Cissé bu la nuyoo te nit ku yu du dof. boo ko nuyoo. loo ko yëkkati xam na ko loo ko daayal xam na ko. wallaahi wallaahi ko defee nga won ko boobat xool ko ko. sëñ Cissé xam ko. diggante ba yàqu ndax fonk na boppam da dem tok këram bu ko defee te waroo koo def alquran dafa wax ci sóotu ujrat na ayo latina amanu in jaakum fasikhun bi naba'in fatabayyanu fatabayanu mu ngoog an tusibo xawman bi jahalatin fa ala ma faaltum nadimina bu xibar dikete te kilifa lañ ko joxoon ngir mbir mu xewan deng nga bu xibar dikete gëstu ko leer lu ko ba mu leer kon kiy wax na leerlu Mm-hmm. journaliste bi bind na leer leerlu. Mm-hmm. kiy wax ci rajo bi na leerlu. Mm-hmm. moo gën dox di tañaxu. ndax tànk bu jàddee yoon dégg jam ko. wallaahi lu di nga dem ba bind ci loo xam ne. rafetut baaxul. yàq deram ta yaa ko tooñ. tàmbali ci bakkaar wala nga wax ci nit ci anten bi loo xam ne. jaaduwut rafetut te yaa ko tooñ. kon journaliste bi wax. ak biy bind na nañu seet li ñuy wax bu baax a baax. gëstu ko xibaar bi. ba mu xam leer na. ndax dañuy wax ne. xibaar bi lan la. Mm-hmm. fan la amee. Mm-hmm. ku ko amal. Mm-hmm. nu mu amee. lii mooy mooy boo koy jàng lii li ñu lay wax. ak yeneen yu gën foor yu ma yu ma xamut. bu ko defee boo tegoo ci yoon wi. doo gaañ kenn. doo froissé kenn. léegi nag jamono jii. ak bokk yàqu na. amatul. ndax léegi bu aw xew amee. sëñ siise nga dem ci xew a toog jàpp sa njàmbur. kii yéen a bokk mel maam. ak bokk yëkkati la. nga ñëw toog. siis yi nga jëkk a jot ci ta baas bi boo ci toogee waa ji xam na ne gaari woo kaat kaat amuloo ay ay étage mm-hmm. fa la lay romb de mm-hmm. kati baaram la lay jox te sa mbokk te moo nga jóg est-ce que léegi lu muy def. Uh-huh. day yuutu waajoo xam ne. Uh-huh. borom étage la borom 4 kaat la sol sol sol gari laa wala mbasañ. Uh-huh. mu ëlbatiku nuyoo ko tàppoog moom fóon ko yow mu jox la ko loxo <laughs> nga xool yow mi xam jëf yi jaaxal la. te waa ji saakub suuf boolewu leen. xam na saakub suuf boolewu leen mooy lan. xale yi ko xam. mooy boo tegee saakub suuf bu fees del di jël benn fepp. naan ab naan siise. Moussa. Cissé Moussa ba saako ba jot takk bu ngeen di yegg ci menn maam ngeen waaxut aadama ak aw. est-ce que te kii yéen bokk menn maam fii. est-ce que yow nga ñëw ci ak bokk. Mhm. waaye sa mbubb woyof na faalewu la. gan ñooñee di gani boppam. te mhm. yóbbu ca taaxam kaw ma. Mhm. jox leen ñamu tuubaa wa tubaarkàlla. yow ak kanet ya. yow mii di mbokkam. tant bi ci gën ci ngelaw li. léeg-léeg baas bi daanu bant bi gaañ la nga naan ah nangam ah mooy wattu leen wattu leen leen ne. <laughs> yow mii moo tax lu baree bari am na mbokk yi du ñu dem xew kenn parce que nit askor di su ko cof dëgg la lu wér lu askor dañ koy jàpp ak fukki loxo lu wér askor boo askor boo ko cofee mu rëcc lii moo yàq bokk gi di nga jóg di seeti nit war a yendu këram nga jëw nuyu ko muy sa mbokk léegi mu fay la fayin woo xam ne wax waxin yoo xam ne yow ci sa bopp du la sax dalal bu ko defee nga ne ko bu dee as gor nga te am xel man dama fee jaaral rek kër diw laa jëwoon mhm. dama fee jaar rek ne naa la siyaare dëgg la fekk da ngaa ñëwoon pour yendu si ci moom mhm. waaye na mu la ñàkk itte mhm. na mu téye kanamam noo ne waaja daf ne daf ne euh, euh, daf daf ne gan boo ko amee mu ñëw nuyoo si nga di ko daqaale ci kaddu naan ko fi nga jëm soriwut de mën ngaa kii wala nangam ak nangam <laughs> du ko nangu waaja nee dëgg la dëgg la wa akrimu adiyaafa bi tarxiibi wa bil xiraawal bi si wa taqriibi نجن در الغنية كياتل سين كنم بلنا ترحيب موي مرحبا وسهلا جوجي وبالخرا وبس بوي بغانا لكو تي لو ام تاي نغا ديكو جيغي غان دو ويت داخ غان دافا ام اق دغلا ولا تبي قواري اذا ضيف حل بي ترحل فان الحي منك قريب كون غان دافا ام صلا من وعلم بان المراه مخبر اهله بمبيته ابدا ويت لم يسالي كان دانا دم ca këram bu toogee ci gan yi ngane gi ba ñibbi mhm. dana nettali waa këram de mhm. Mhm. donte laaj ñu ko dana wax ne man de barab ba lii fa am lii fa am kon gan dafa mat a fonk ndax sa mbokk la boo ko doyee dalee ñàkkal ko fayda boo liggéey du ñëwati bu dee ko am ful la dëgg la lii mooy yàq bokk ak léegi wallaay wallaay xamoo sa nijaay xamoo rakkam xamoo mbokkam jàmbur ngay xam donte bokk léegi sax doy na waar ba tax na ñu bari bu ñu amee problème wala ñu am seen soxla ab jàmbur ca la ñuy dem de ñu bari seen soxla jàmbur a koy xam de uhuh. boo ko mbokk xamee uhuh. dina la nittalil uhuh. dana la xeeb dana la xas bu Pape Diokhané ñëw mu ne ah <laughs> Pape Diokhané fi la aña biig <laughs> fi la reer a biig yooyu la nit ñi di wax mbokk boo ko dénkee mu lekk ko mbokkum mhm. léegi mhm. boo amee sa magasin mhm. wala nga am sa xaalis ubbi sa barab dugal ci ay bokk ñu yàq ko nga dem ëlbatiku def ni ñoom te ñoom kat dañu la bàyyi nga dem te dañu lay téqatal <laughs> la suñu aadi turé wax si yëpp la si mu tedd mu baax mu def ko ne <laughs> du dog tànki mbokkam du kor si si rakkam <laughs> da koy def ni boppam du gottib kiram loolee bu ko nit ñu baax ñi doon def tey boo bëggee dem ñu bàyyi la nga dem boo bëggee ñu dimbali la ah waaye wax ju ñaaw a am di xeeb mbokk bu saw askan askan wi yéen a ko bokk waaye bu amul xaalis nga daa néew doole nun nangam doo ànd ak moom doo bëgg ne sama mbokk dañ ko sa présenté te yéen a gënoo ko fenn. wallaay wallaay ku ëpp te bokk mënoo koo jëw. dëgg la nii la mbir mi demee. dëgg la dëgg la macha allah am na solo. am na solo ni nga koy nu may dégg nu koy waxee rek. Mhm. gano bëccëg. ne kanam a koy dalal. waaw su dee guddi nag kaddu. waaw dëgg la macha allah. loolu mhm. am na solo kon am na ñu bëri ñoo xam ne yéene nañ di defar. Mhm. waaye dañuy bë du ñuy bëgg ku leen di. doyadal loolu nga wax léegi wala du la ne xeeb. dañu mhm. laa tas tarix la day fi min kër këlkalu. min kër këlkalu. bul xatal sa xol. ci gan gii ñëw. fa innahu eh, amma xaribun yarxalu moom kat du fi yàgg. gan lañ ca karaw la karaw xam nga ko. mooy karaw mooy li ñuy def fonde. te xale yi xew léegi. karaw ñu ngi koy wax kawarug bopp. <laughs> kawarug bopp lañu naan karaw <laughs> te karaw pour nga am ko. da ngay wa wal sa dugub. araw ko. ci leget gi. jël araw ji def ci foone. loolu mooy mooy karaw. karaw waaye kawar. kawar mooy ki ci kaw bopp bi. Mm-hmm. bu ko defee ñu ne nag léegi gan gi du yàgg léegi mu dem. Uh-huh. léegi mu laxas dem. Mm-hmm. kon bul xatal saxol ci gan gi. ndii mm-hmm. moo xew léegi. wallaahi wallaahi bëri na bëri na macha allah. bëri na yàlla yàlla gën a defar jikko yi macha allah. Eh, Serigne Joxaane ni ma déggee benn mag di koy tekkee kawar. Mm-hmm. mu ne ndax lépp dafa placé wu ba pare moom mu ñëw ne tong sa kaw. mooy mooy kawar mooy <laughs> kawar. kenn la nga ne <laughs> kawar. kawar kawar. karaw. karaw <laughs> karaw mm-hmm. ngi nii. Mm-hmm. bu ñu la nee baatub yéere. mooy la nga am ba ci sa musuwaar. ba ci sa yére yi ndaw sa seetment baatub yére loolu lépp ci la bokk ba si àll ba ñun waaw la la ngay takkee fas sax loolu jamono la <laughs> am na jamono joj bu dikkee bu ñu la nee mhm. andil yére yi mhm. Mhm. ngay génne fekk bët dafa seb bi kon génneel yére yi mooy nan dem ji gerte baatub yéere bu doxee foofu noonu lay tekki foofu bu ñu toogee ba euh, bëccëg jot ñu ne la génneel yére yi mooy gojog baag ngay génne rooti ñu wëgg jur gi fajar bu ñu la nee génneel yére yi mhm. baraana kaas ngay gënné mhm. ndax yéré attaay lañ la wax dëgg la lee yére fas lañ la wax mhm. lii yére machine lañ la wax <laughs> amna solo ma sha allah yéré dox na fofu amna solo amna solo mu melni ki danoo am serveur bi dafa xaw am tay problème deug la na si jégalu bu baax du ñak da ngeen nu mëna top ci kanam si 88 628 32 32 sëñ Abdoulahi Mbengue mu ngi si sa eh, doom sa jarbaat soxna bi nekkoon si DFM. waaw mu ngi may yónnee message nee na ma ngi lay nuyu di lay bëggee. ku baax la. <laughs> Uh-huh, uh-huh. ku nangoo liggéey. wallaay ku jàmbaare. Uh-huh. ku mën a métier ma ñu ko doon def loo. waaye nag waaye nag nit ku baax. moo ko mm-hmm. fekk day am lu muy bañ. wallaay wallaay ndeysaan léegi bañkat la. dëgg la dëgg la mën naa liggéey. Mm-hmm. mën na métier am tubarkalla. Mm-hmm. waaye nag. mook ñu baax ñëpp a wallaay noonu la sax nit de nit boo gëmee sa bopp macha allah ku baax la wallaay wallaay xam naa xam naa ku bëgg diine la loolu moom xam naa ko loolu itam mbiram ma waxtu lu ko raw wallaay wallaay wallaay wallaay ku baax la mu ngi lay nuyu lu ndax wa maa shahid naa illaa bi ma alim na wallaay alxuraan nee na nit buy seere day seere la mu xam te yàgg nañu fa mais ku baax la dëgg la dëgg la baax a baax mu ngi lay koy fay ci message bi mu ngi lay tubarkal di ko ñaanal yàlla may ko fan gudd wér gu yaram mu gudd moom Sidibé magam moo ne ca Sud FM ca Jurbel ndeysaan ndeysaan dëgg la dëgg la ku baax la dëgg la dëgg ah, la eh, ko Papa dama lay bàyyi nga am looy wax si jamono beeg ñi nga mm-hmm. xam ne sunu xol mm-hmm. moom jub day jaar na leenu jaar feneen fi mm-hmm. maanaam kañaan nag lu tax mu toll fii lu tax mu am lii yooyu seen itte yëpp mooy toujours rek luy yàq loolu lan nga leen di laay bi rek euh, damay xàjjale ba pare kañaan ak soxor Mm-hmm. kañaan ak soxor ak kañaan bokkuñu. Mm-hmm. Mm-hmm. soxor. mooy ku sadik. ku attana jam nit. attan koo rey attan koo taggate. kooku mooy ku sadik mooy soxor. soxor lu ñuy jëf la. ñu di ko gis. ci lu métti ci lu ñaaw. añaan ci xol lay ne. moo tax téere ne ku añaan du doon sangub moroom ya mukk. lu tax mooy. isil hasoodi. nit boo xamee dafa xës xës xës añaan benn. Mhm. mooy sëñ bi noo bokk fu ñuy liggéeyee. Mhm. lu tax mu am kër te amu ko. Mhm. lu tax mu am oto di ko ca xool. bu boobaa kooku. sëñ Tuubaa nee na ca Masaalik. wala yasurruhu madal asmaani. ci waa halaki bila tabaani day bëgg rek waa ji xëy dee. wala mu xëy accidenté. ki añaane nit ki ci li mu am. te yàlla moom. noonu naa la léegi mooy doxal mooy faalu li ma yuridu. mooy seet li ko neex.

Euh, te yëngante xam-xamam. jërëjëf ànd ci aussi ak maandu boo xam ne sa baat sax ku ko ku ko dégg rek maandu. jërëjëf. macha allah tey nga dalal ñu aussi benn gan boo xam ne duñ ko présenté. ñun ñëpp ñu ngi naan waaw kooku kan la war a doon. wallaay wallaay ndeysaan. mais nag duñ ko déggee. <laughs> Uh-huh. Euh, gis nañu daal ne nit ku mag ngañu indi. wallaay ndeysaan wallaay ñaanal leen mag lu bëri wax sage un sage. dëgg la dëgg la wallahi wallahi mu nekk en même temps philosophe. Mhm, mhm. philosophe mooy koo xam ne ku am takk la. dëgg la wallaay ndeysaan. mu nekk koo xam ne en la. wallaay ndeysaan di koo xam ne nii ku xam société la. dëgg la dëgg la lu wér. mu nekk koo xam ne nii érudit la. macha allah ndeysaan. heure bii di koo xam ne ku am xam-xam ku yàlla. wallaay médaille bu ñu takkal nit ku defar réew. wax naa ko ko ne ko woon ko wallaay ndeysaan wallaay wallaay. ñu di leen di boole di leen di ñu di leen di sargal man nag Babacar Pouy lañ ma wax maa ngi fii Malika. ndeysaan waay sëñ Babacar Pouy yaa baax waay. <laughs> Euh, noo ngi lay ñaanal bu baax. moom daay wax dëgg sëñ Joxaan nee na duut ci lii nga xam ne moo nar a yàq. lan lan nga ko bëgg laaj sëñ Pouy. lan nga bëgg mu ñëwaat si. waaw euh, parce que. Hmm. Euh, lii nag nar yàq si société hmm. mooy euh, njëgaan moo xam ne sëguñu ko. Hmm. njëgaan baax na lool. Mhm. parce que mooy ñu na ouverture nga ubbeeku waaw bañ a tëju mais lii nag da nga am nag loo xam ne seggekaay la nga segg ko dëgg la parce que lépp am na lu ci baax am na loo xam ne wax dëgg dafa si saan dëgg la lu baax li ñu téye lu bon li ñu war koo teg mais ci biti dëgg la mais ñoom nag dañuy jël dañuy ñëw ñun dañuy jël rek daf rey dàq amalgaame lépp mhm. te yàlla xam na ne même fi ñuy jógaanee waaw eee zaner li yu gena ban men an mi li zaner te wè di parce ke men tan an mi ay zaner li baran an mi konti mi om chè ap di mè eksport so ap mè geni mè ko mè bon mè endi li mè ralok sin sòtè ki mè konti fòs sòtè se kon apè la seli sòtè mè fami fami bon grou mè kon zon afèk zon bon grou lépp loo xam ne lu jaaxal tubaab yi tubaab yi nar koo bëgg yàq. ni ñu koy yàqal ñu ne nañu doon société ba. nañ jël jigéen jiital ñu jël góor. waaw góor a waay. góor ya bëgguñu koo jigéen jiite leen. parce que dafa ak aada waroo ak lislaam. su ko defee soit ñoom dootuñu denc wala dencin ba dootu rafet. ci ñu jël jigéen ñi ñu ne la leen boyal ñuy def lu leen neex sol lu leen neex gën def lu leen neex. jaaduwul. liberté boobu su fekkente ni góor ga nanguwu ko góor ga dina man daal jigéen jaraltuma sax di sonn di ko fat ci kër. wallaahi. <laughs> su ko defee ñu ngi bugg a far li nga xam ne mooy farata diggante góor ak jigéen. loolu dëgg la. <laughs> ñu ne xale lu la neex defal. nga jëlal sa say précaution ku nekk dafa am liberté am. bu la sa nga dem police. noonu la doo leen dóor doo mhm. xale yu góor ak yu jigéen sumi seen tubéy waaw. xale yu góor war nañu wax ci tubéy sumi. dama leen ndigg bu attanul tubéy du attan jabar. ay mhm. est mhm. muy droit. waaw. roi balaa muy ñëw am lu ko lal muy war-war. la. war-war mo moo mag sañ-sañ. wallaahi. sëriñ bi ko sànq. Mhm. balaa ñuy naan ay droit la femme wala droit de l' effectivement wala biir droit de l'homme pourquoi mm-hmm. nag dafa am balaa droit boobu dafa am devoir dëgg la dëgg la mm-hmm. devoir ko ba pare dal di indi nag dëgg la dëgg la loolu nag nekk loo xam ne daf ñoo war a interpellé yi ñëpp dëgg la dëgg la ñu seet jigaani lan la danoo rootaan dex ñu ngi noonu nag mm-hmm. li nga wax aussi lu wër la muy muy culture muy cosaan. waaw. man nee naa leen so cosaan muy suuf si nga xam ne. Mhm. su baaxee gàncax baax su bonee gàncax bon. Mhm, dëgg la noonu la ko alxuraan waxee. mu ngi noonu kon cosaan bi duñ ko war a seet bu baax a baax. Mhm. xam suñu bopp. xam lan mooy suñu valeur maam yi gis suñuy référence ak suñuy référence. mu am lu ñuy bañ ak lu ñuy jomb. nga xam ne même tubaab wala keneen kii ñëw. waaw ah attention soo demee foofu nag nangam li moom dañ koy bañ nangam li moom nga na nga ko na nga sàmmoog moom. mais réew duñ ko ubbi rek fu neexee nit mu dugg fu neexee nit mu génn lu neexee nit mu ngeen baal ma macha allah te bu ko gan duggee lu ko neex indaale. Mm-hmm. mi ngi noonu <laughs> am na solo. waaw kay merci beaucoup jërëjëf sëñ Pouy sunu xol sedd na. baarakallah fii kii wax na dara kat. wallaay wallaay mm. macha allah. wax nga lu baax am na solo <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf Pouy. baarakallah fii kay macha allah. 88 628 32 32. nu ngi si si Wala FM. 98 point 0. tey inspecteur Joxaane du ñuy wéttali. 88 628 32 32 macha allah. waaw euh, noo ngi woon ci soxor. Mhm. ak iñaan. Mhm, mhm. iñaan ci xol lay ne. soxor ci jëf lay feeñ. soxor mooy nit ku sadik waxoon naa ko léegi. nit ku añaan nag. du am la mu bëgg. du te kaw ak maasam du am la mu bëgg mukk ndax yàlla du ko nangu loolu mooy añaan mu yàq sa xol nag rek ngay jeex di am la naqari waa ji di tedd di baax rek wallaay wallaay moo tax te léegi dafa bari dëgg la dëgg la lii mooy sa xol kon lii mooy eñaan mu ko defee tubaab bi dañu noon nax ca départ man fekke naa fukki at ak yett fukki at ak juróom ñu wàcce ko ca tool ya dugal ko école Mm-hmm. Mm-hmm. ñu dugal ko école. Mm-hmm. bi ñu koy woo bàyyi muudu. ne sama doom du jàng tubaab. damay misaal. bàyyi yu ne sama doom nangu naa mu jàng. bàyyi moor nangu bàyyi seex bañ. njël bàyyi muudu mii ak bàyyi àlliyu seeni doom tubaab bi yóbbu leen jàngal leen tëbal leen ay classe yóbbu leen France. indi leen oto jox leen teraanga ceeb ak diwlin ak na mu jafe. <laughs> ñi bañ ne ah teraanga yii kat. Eh. nangam nangam noonu la ñu nu yoote mhm. ba ñëpp nu ngoo dugal école mhm. Mhm. ba ñu demee ba nga xam ne gànnaar bañ na dañu mokk marug waaye te buur gànnaar koy xareek moom war ngaa bari kano ah, am na ko ne si yoon bi bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na ngi baarakallah alhamdulilah invité ku rëy ci man. wallaay lu wér de sax koo xam ni wax dëgg yàlla Sénégal du nu doyal. dëgg la lu wér lu wér kay wallaay. wallaay ci moom rek am yokkute. dëgg la lu wér sax macha allah. dégg ñaala xam nga am nga gan. macha allah boo xam ne man man mm. bokk naa ci ndaw ñoo xam ne maa ngi ci gannaawam rek. dëgg la ndeysa yal nga doon mag déglu ndax ku koy déglu doo réer. lu wér a wér macha allah. Eh, tabarakallah yal yàlla dëggal sa. amiin amiin amiin yow moom nga xam ne tamit woo nga ko. Mm-hmm. am solo la siis. parce mm-hmm. que nit ku nekk mm-hmm. baax ñi tip pour ñu njëriñu. Mm-hmm. ñu xamal ni yoon bi. xam ne lan la war a def. wallaay ndeysaan ci biir la moom ci njaboot bi rek lay nekk. dëgg la dëgg la dëgg la bu njaboot yëpp defar. dëgg la njëriñ bi defaroo yëpp dana waaw te loolu ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral mag ñooñu nga xam. moom ci waar boobu la bokk. rajo bu nekk war na fa toog. rajo bu nekk war bu fa toogee rek. bu waxee rek da nga xam. wallaahi wallaahi ndeysaan jàngale ni wallaahi wallaahi man. woo naa ko ci di ko woowaat. dëgg la ndeysaan wallaahi wallaahi. yàlla yàlla dëggal seen taxawaay. amiin amiin amiin amiin pour defar baay yaa baax waay naar barke baay dal. wallaahi ndeysaan amiin amiin amiin. jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin eh, barakallah ah, fiik aywa na nga xamee ne. Mhm. loolu am na. Mhm. ñu neexal ñee. Mhm. tëbalee ni classe. yóbbu leen France. ñëw sollu seeni moroom solut. am lu seeni moroom amut mel nañu amut. bàyyi muudu ñoom daal leen di ñee. nu ngoo seeni doom. aywa muy dem di dem ba léegi. tubaab bi ne comme ñii dañu doon bañ te nangu nañu. léegi defatul fukki at ak nangam. juróom yaari at léegi. <laughs> fa ñuy jóg mooy. waa ji am fukki at ak benn. day jàng alxuraan. alxuraan génn ci ci cib dënnam mhm. mu neex a def ab jullit wallaay mu jëlee ko ca loola wallaay def ko juróom-yaari at si mhm. a demee daara mhm. ñu dugal ko léegi ñii di bañ ñii nangu ba yàgg ba léegi boo dugal sa doom sa jabar mere la ne da nga koo iñaane da nga maa iñaane ba loola demee ba loolu mokk rub juróom-yaari at nga xam da ngay xëy fajar dem di rangi dugal école te mag ñi dañu noon ba a tubaab ba a nasaraanu doy nag jaamu yàlla Mhm. ndax dañoo xaman fa ñu nu jëme mhm. te nun booba xamuñu ko woon mhm. ñu dema dem ba yàgg ñu ne léegi ah non juróom yaari at ah day mën a jàng alxuraan dañ ko def yetti at jardin d'enfant <laughs> est-ce que xale <laughs> bi balaa def lenn ñu yóbbu ko pour mu pour mu gaaw a mën a làkk tubaab gaaw a tubaabee gaaw a nangam fi mu ne koo gis ma nga gàddob sa xale bu ndaw boot ko nangam ak ki nangam ànd ak ndeyam yor butéel ñu defee ne ñoo ca ne loolu bunut waaye du sunu aada wallaay lu wér lu wér am nañu lu ko gën Mhm. am lu fi ne loo xam ne bu jàppee jariñu mhm. kon dañoo rootaani mhm. jéggi ak dex fi nga nekk am na ndax am na fi nga dem di rootaani jéggi dex loola jéggi dex te bu boobaa euh, mar du ñàkk te boo toppatoo fi nga ne loo naan dem ca ndoxum jàmbur saa bu waa ji soxlaa bi de da koy tëj yow nga ñàkk loolu tubaab bi foofu la dugal léegi xale yi ñu ngi def jardin d'enfant ñu ngi def yu kenn xamul fi mu nekk tubaarkàlla benn xale bu xam ndeyam wala mu xam baayam wala mu xam cosaanam amul dëgg la dëgg la te kilifa yee ko ci bàyyi naa koy wax lu bëree bëree bëri di fexe dënnu xelel waaw a Jadda jiitu si jiitu ca lu am a solo la lool na dañu doon def nag tubaab bee ko mm-hmm. dindi wallaay wallaay gisoo ba nga xamee ne béy mm-hmm. ni mu yeewoo ak ni mu mm-hmm. baaxee ku ñu masaa ngénte man mii béy lañu ma tudde ak sama classe yëpp masaa tudde aw béy Mhm, est-ce que da ngay da ngay da ngay sawar. Mhm. léegi nag bi tubaab bi demee ba xam jamonoy Senghor. Mhm. xam ne lii day tax nit ñi kenn du leen mën a nax. mu mu éliminer béy. est-ce que kenn ñamoon xar ma ñu xar ma ñu xar ma ñu doon nàmpale xele yu dof ya <laughs> léegi xar mii la ñuy géntee xale yi léegi. ah wala <laughs> nag dellu si nañu kon. béy foog naa léegi moom kenn ñemewu ko. béy kenn ñematu ko. boo amoon tabaski rek nga yeewu béy ñu ne ñu ne borom sikkim la mhm. ah yooyu yuuxoo la say doom naan sama papa nangam eh. ba ñimeetuloo ko te moo nekkoon cosaan mhm. mhm. loolu lépp tubaab beenu ci dugal léegi nu nu nu yuqamtiku la yokk na taxawaay waaye da ngay dellu si waat wallaay wallaay dëgg cosaan nit mënu koo ñàkk te it mënoo tëb tëb tëb di tubaab ma ne yàgg bar cib diig du ko taxatal nit gësig jinax lu mu yàgg-yàgg-yàgg cib déeg di tëm du taxu ma tam tabaski mukk mbëtt du mbar bar dañuy waxtaan day geen rek wallaay wallaay warul ne mën noo fexe bari tubaab sa aadaay réew jii na fi ab dëkk bu fekkee mënoo fa am dandité mhm. mënoo fa am carte juddu mhm. mënoo fa am passeport mhm. bokku leen aada wallaay wallaay bokku leen cosaan dina dina mooy dëgg dinaay doon dégg ngay wax ah. ne mirance baye jambour waaw ku sa am ku soow ba am ca tubay <laughs> ku sa baye dee du ma taw wallaay wallaay dëgg mirance baye jàmbur ngay dem di soow di xëccoo ba jox la ca tubay <laughs> wallaay bu sa baye dee du ma taw wax wallaay ah. wallaay war na no fa kon nan sopp suñu cosaan li amna solo fonk suñuy bok fonk suñuy xarit xolal pap bu ñëk ni ni ni wéré di ni mu bari légui ni mu néwé woon. amutoon bu njëkk. te macha allah fajukaay yi léegi bëri lool. waaw te tey la yaram tey la feebar gën a bëri. Mhm. tey la dee gi gën a bëri. wallaay lu wér nun bu nit masaa faatu. Mhm. nun dañuy dañuy dugg ci ron lal ga. Mhm. dëgg la xam du ah. turu néew ndax bàyyi ko wul. turu day foofee la. <laughs> ah ab ba nu ma saa tubaab ñëw na. est-ce di am. Mm-hmm. am na gaaf jamono toll woon mm-hmm. waaye la jamono néew néew doole booba mm-hmm. la fa nekkan moo gën a barkeel lii fi ak li muy bari bari mbéy mi seet ko boo masaa béy ñu ne diw fukki mbaam la am juróomi mbaam la am mbéy mi daan am barke dëgg la dëgg la booba ah, larmet la ak konko ak sonko jeere wallaay wallaay man kaw kaw laa béykat laa macha allah di dongob daara tëcca <laughs> di bawol bawol di sénégalais ah, di murit di lambaay lambaay kon ndomb yi yëpp maa takk dama lay xamal ne la ji looloo ko yàq leneen yàqu du du du Senghor. Mm-hmm. du Ablaye Wade du mm-hmm. Abdou Diouf du Macky mm-hmm. Sall. lu wér lu wér yàlla moo wax ne. inna Allaaha laa yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim. ak euh, man yàlla dama soppi seen nit mukk. te fekk da ngeen a soppi ko yéen. dëgg la dëgg la yàlla nag bu nu solee yére yu weex. tubaarkàlla nu kontaan. Mm-hmm. bu yàlla ubbee ci misaal mm-hmm. mu bi polo toro néegum gis gis ci mbubb yu xonq mm-hmm. gis ñi yor yubbu la yàlla bàyyi nag sunu lànkar ak sunu pénte nii la demee <laughs> dëgg la waaye wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuhsuha <laughs> yàlla nee na li ma leen jox ci xéewal mënul xëyul ci seen bopp mun leen koo calculer mun leen koo jàpp te ku xëy fudd sa dara méttiwu la xamal ne am nga xéewal wallaay lu wér a wér xéewal la loo ca dolliwaat baax na am na waajoo xam ne million yi nga bëgg waa ji moom la am ba noppi. Mhm. ma nga hôpital. Mhm. munu caa naan kaasam ndox. dëgg la dëgg la. Mhm. am na waa joo xam ne. balaa tur ndox. dem ji ak docteur. kan yow mi nga xam ne da ngay tuur ndox nu mu la neexee di tuur dugub nu mu la neexee di nga am sa loo am ñetti dërëm lu matoon nga lekk ko mu rees nga dem ndakaaru li jënt ji donte bëgg nga ab junni amoo ko nga paas ñëw wala nga dox ñëw wala nga ñaan paas boo dikkee sa jabar teer la ci buntu kër gi sa doom dogale la nga yëkkati sa doom toog ngeen bokk reer ak cant la wallaay bu rëy bu rëy waa ja nga xam ne xëy na dem Dakar liggéenti million jot na ca waaye ba mu bàyyi ko fa mu ko ay bokkam xaar ko jabaram xaar ko ba minuit xibaar la jot ne ko diw dafa faatu wala diw tànk ba dafa dam kooko ñëbb si yow mi ñëw taw amoo junne yaay sëri caab sa waa kër wallaay wallaay yow yaay sa sëri caab waa mhm. nu jël si yoon bi bismillah allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ah, waa sëñ Yaxya Caam waaw ah, naka liggéey Caam Caam Seex Ahmed Tidiane mi ngi lay nuyu. ah Baar mu ngi si jàmm. ah mu ngi si jàmm Thiam. alhamdulilah kontaan naa si waxtaan bu baax. jërëjëf Thiam Thiam. ñaan bu baax a baax. jërëjëf Thiam. di nuyu ki ñu yëkkati ba oustaz di bu baax a baax sëñ mm-hmm. bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf yaa baax waay. waaw keroog woo naa la ba sonn pour ma lay jaal sëñ Abdoulaye dëgg la wallaay wallaay dëgg la ndeysaan dafa fekkoon ma amin amin amin jërëjëf Thiam amin amin Thiam amin amin Thiam amin amin Thiam sallallahu taala alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf barakala fii ka yal na yàlla def la mag yàlla barkel la